bismillahi rahmaani rahim man seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe Cheikh Ahmed Saloum Dieng Nasruddin président forum islamique pour la paix may woote li islam woote woon rek te diine sër yëpp woote ko mooy fagaru ak set waaye fagaru rawatina ci jamono ji nga xam ni dafa am lu wàcc ci àdduna bi lëmbe àdduna jaaxal àdduna jullit nag ñaan la am ñaan ak dégg waxi ñi nga xam ni ñoo ñoom la yàlla may xarañ ak xam-xam ci wàllu santé ñoom nag li ñu digle mooy kenn ku ñu ne bala ngaa génn sa kër nga raxasaloo ak saabu raxasi mu sell soo paree am na produit yoo xam ne nga jaay ci pharmacie yi ak ci station ak yoo xam ne dafay xeex microbe nga def ko sa loxo soo ko mënee defaale sa poche sax fooy duggee ci mbooloo yor ko laal ko ci boo génnee ci mbooloo wala boo dawalee sa oto ba taxawee laalaat ko ndax microbe moom fa ne lay jógee di saluer aussi effort yi nga xam ni son excellence le président Macky Sall def na ko ci mooy taxawal comité boo xam ne dañoo taxaw ngir xeex jàngoro bi ngir mu bañ a yaatu ci Sénégal donte yàlla def na mu dugg fi waaye na fi yem te kaay yi ci amit yàlla na ko yàlla saafara rafetlu aussi kilifa diine yi solidarité bi nga xam ne def nañ ko ak son excellence président de la république rawatina Maolana Cheikh Mouhamadul Mountakha yemul ci yëkkati sant millions jox comité bi waaye dafa ne nañ déglu waxi waa ko docteur waaye wax ne jox ndigal taalibe yi ku ci mën a jàppale gouvernement bi ci wàllu xaalis nga jàppale ko ndax lu bett la te lu bett mën la. Mok Sénégal man Ndeye Awa responsable politique APR Thiès Est m'a ngi ñaan euh, ak di invité ñëpp ci ñu topp bi exemple suñu président de la République joxe di raxas loxo yi su di invité tam ak di ñu top instruction madame ndigal yi nga xamné mo moo ci ministre de la santé ak ministre de l'intérieur ngir ñu gëna mëna mën fièvre bi nga xamné mo daanu fépp té mo nek Sénégal muy coronavirus ñu def ba mu bañ law ci biir Sénégal. man Ousseynou Diouf responsable politique APR à Thiès nekk ci zone ouest bi nek candidat à la mairie ma ñëwon tay di waxtaan ak yeen ci feebar bi nga xam ne virus. jaaxal àdduna muy coronavirus di ñaax suñu mbokk sénégalais yi ñu respecté consigne yi nga xam ministère de la santé ko joxe président de la république tek wane Tek bi mu lan ñuy raxas loxo yi ak sabu ba mu baax fomp ak serviette ngir lan bañ feebar bi wasaaroo nañ gëm na feebar bi am na ngi faat nit ñi ci àdduna te dugg na sénégal te moo ngi fiy commencé bëri niñ koy mieux vaut prévenir que guérir nañu jël suñuy disposition ñu utiliser gel bi di ko gànnaayoo saa su ne yaakaar naa consignes yi bu ko ñëpp respecté ñu gëm na feebar bi lu am la di raxas loxo yi di moytu rassemblement yi ministère de la santé ak président de la république jël nañ disposition yu mag ngir xeex ak moom kon nag nañ leen ci jàppale te moytu balaa feebar bi di ñu gañee man la docteur Djibril Sarr du président mouvement alliance pour une nouvelle direction may ñëw rek di ñaax sénégalais yépp yi nga xamni ñoo fi nek ak ñi nek ci diaspora bi di len wax vraiment ñu jël sen matuwa yépp ci jàngoro ji yi nga xam ni tey moo law ci àddina ma rawatina fii nga xam ni ci Sénégal moo tax sénégalais yëpp maa ngi leen di ñaax ñu jël seen matuwaay maanaam di def ndigal yi nga xam ni ministère de la sante jox jox na leen ko ak ñëpp ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc wàllu wér yaram maanaam di raxas seen loxo à chaque fois bu ñu bu ñu baje di dajaloo mbooloo yu bare di raxas seen loxo bu baax comme ni ko waa kër docteur waxee ndax jàngoro ji du jàngoro ju ndaw té mi ngi commencer law ci réew mi té bu lawé dinañ dem ba nga xamni dinañ mëna dañuy dañuy tok suñu kër yi dootuñu ñu mëna genn ndax bu ngeen xolé légui tej nañ sax suñuy frontière manam lepp li nga xamni day dugg ci dëkk bi dootul dugg té loolu dina am ay conséquences yo xamni conséquences économiques la loolu dina wàññi suñu économie lu bëré Moi, honorable député Maïmouna Sène, je m'engage auprès des populations pour lutter contre le coronavirus. Nous devons plus que jamais agir ensemble pour freiner la propagation du Covid-19. Nous devons adopter de nouveaux comportements et respecter les recommandations du ministre de la Santé de l'Action sociale et les directives du ministre de l'Intérieur pour se protéger et protéger les autres. Nous devons aussi prendre l'exemple du président de la République. Nous devons laver nommé.

Ah, liggéey ci yenn façon liggéey yi nga xam ne dañuy saafonte ak nit ñi nañuy ut masque ba nga xamante ne duñu leen mën a euh, jox feebar bi wala masque bi te feebar bi tamit ñooñu dañ duñ ko mën a doj loolu moo tax ma leen di gën di ñaax pour ñu gën ci góorgóorlu gën cee jàpp koo xamante ne tamit da di jigéen wala xale gur góor dagal say we pour que sooy raxasu li nga xamante ne day làqatu ci biir ñu mën koo gën a di dindi ndax tamit su fekkee da nga am ay we we yi tamit day nekk loo xamante ne day mën a ñuy wax ni microbe la day nekk denc virus bi ci biir wey loo raxas raxas te fekk mu làqatu ci ginnaaw day nekk lu koy indil ay gàllankoor maa ngi leen di gën di ñaax di ñaan askan wi ñu def tamit kilifa yi ñu ñaanal ñu pour lii nga xamante ne mi ngi nekk balaa dal di yem fii. nañu jóg ànd boole suñuy force xeex corona bi nga xam ne mën nañu faagaagal jóg ca ba muy teel ñëpp toog seen i kër tëj jàngu yi defuñu ko pour des vacances dañ nañu jël xale yi aar leen mu toog ci seen kër yi pour éviter le pire loolu ànd ak suñu force xeex ko nekk loxo yi nay set saa yu ñu xëyee nañ koy raxas bu ñu duggee ci bërëb génn nañ ko raxas bu ñu lekkee pare nañ ko raxas loxo yi nañ koy raxas ba mu set bu mënee jël ay masque ñu jël ko protection te ngal la ko amul dara loo def ci biti nga toog sa kër ba yàlla def jàmm ñu ànd ñaan ci buur bi yàlla ñu faxsal ñu ko